Moustapha Diop ginnaaw bi mu fa génne nag la daal di def concours bi nga xam ne maanaam mooy concours école nationale d'administration et de la magistrature yéen a kaay gi ne na moom ju Samba Sall ak Serigne Bassirou Gueye procureur maanaam ay promotionnaire la ñoo jàngandoo yéen a kaay gi ne fukki fan ak ci weer octobre atum 2016 la ñu ko daal di tab mu nekk doyen de justice nekk doyen de justice d'instruction tribunal hors classe de Dakar yéen a gi ne na ay dossiers yu tàng yoo xam ne jaar nañ ci loxoy Samba Sall Seck mi nga xam ne maanaam si woon na lool ci réew mi dossier imam Aliou Ndao mi nga xam ne doon ko jiiñ ci lu yooyu yëpp ju Samba Sall ci ay loxom jaar na a kaay gi ne na dossier bi nga xam ne nag na jër mujj ci ay loxom mooy dossier Ousmane Sonko yéen a kaay gi ne na ju Samba Sall moo defoon contrôle judiciaire ki nga xam ne maanaam mooy Ousmane Sonko yéen a kaay na la ko waraloon bokk na xam ne moom lañ dénkoon dossier boobu nag ginnaaw bi mu ko tegee ci suuf la ko ju Samba Sall jël yéen a gi de laas nee na Samba Sall wuy ji na nag maanaam attekat bu mag bi yàlla sunu borom yéen a kaay gi di réew mi ko di jee nee na en tout cas faatu gi nga xamante ne juge Samba Sall faatu na ko mbir mi daal xel tey na see mbir mi ma ngi jeexi jaaxa ana lan moo ko waral bëri na ci nag ñoo xam ne ñoo ngi wax ne mbirum xarqa fuuxa maanaam mbirum misika yéen a kaay gi di source a nee na nag mujjantalu bis yi nga xamante ni Samba Sall dund na ko ca lalu hôpital ba metti woon na lool ndax tolloon na jamono joo xam ne maanaam dugguma sax ne law yéen a kaay mu nekk réanimation mujjee gi sax mu nekk dans le coma yéen a kaay gi di évidence nee na génn àdduna ak maanaam mystique la wala nag mbir yàlla sunu borom la yéen a kaay gi di Vox Populi njiitu réew mi di président Macky Sall yëkkatee ay kàddu di jaal njabootu Samba Sall nee na nag ab professionnel bu mag la woon ba pare nit ko am yërmande la woon maanaam ci nit loolee kàddu njiitu réew mi di président Macky Sall la Guy Marie Sagna activiste bi nga xam ne nee na nag ju Samba Sall def na ko ay mandat dépôt ay yooni yoon waaye nag moom Guy Marie Sagna nee na lii nga xam ne maanaam moo xew muy génn àdduna ak Samba Sall amul benn yoon boo xam ne dinaa ci wane ak kontante wala nag benn yoon boo xam ne daal dinaa ci wane ak féex amul benn yoon tamit boo xam ne dinaa ko jàppal lenn ci sama xol yéen kaay gi di réew mi quotidien ak le témoin xëy duñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal démb jano nañu ak tas ko do yi ñëw nañ ci manifestation yi nga xam ne moo amoon ci mbiri Ousmane Sonko ba am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci ba bakkan yéen kaay gi ne na maître Sidiki Kaba ginnaaw kàddu yi nga xam ne yëkkati na moom dafa tuumaal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maître Sidiki Kaba ne na mbir yi nag gars yi da ngay dégg ñuy ne état bu Sénégal la waaye nag la ca ëpp lépp Ousmane mi nga xam ne moom dafa jàpp ne mooy sénégalais bi nga xam ne daal moo tiim li nga xam ne moo jëm ci wàllum yoona moom maître Sidiki Kaba nee na Ousmane Sonko lépp moo ko provoqué ndax moo lànkoon bañ a wuy ji li nga xam ne maanaam mooy yoon ba pare woote li nga xam ne mooy ab résistance lu jëm ci wàllum force occulte maître Sidiki Kaba daan nay dëggal kàddu yi nga xam ne Antoine Félix Diome ministre l'intérieur yëkkati woon na ko yéen a kaay gii de la témoin nee na yi nga xam ne moo amoon ci mbiri Ousmane Sonko maanaam policiers yi nga xam ne ñoo nekkoon ci mbedd mi ak gendarme yi nekkoon ci ak soldats yi nekkoon ci mbedd mi kenn ku nekk jox nañ ko trente mille maanaam juróom benn junni kenn ku nekk jox nañ ko ko ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci terrain bi maanaam ngir nag dal am yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naa ñu Hissène Habré gars yi ñoo ngi wax ne dafa feebar ba maara day taali ñu bëgg koo génne ci kasu bi waaye nag ñi nga xam ne ñoo loru woon ci mbiri Hissène Habré ñoom nag nee nañu daal Hissène Habré bu dee dafa feebar na fajoo ci kasu bi yéen kaay gi di Dakar Times nee nag lu toll si ñaari téeméer ak juróom cay organisation société civile ci àdduna bi ñooy jaajëfal di encourager di béggee ki nga xam ne mooy Macky Sall la waral bokk na ci taxawaay bi nga xam ne amee na ko ci annulation dette africaine bi am ngir ñu baal Afrique bor yi nga xam ne amee nañu ko taxawaay bi nga xam ne Macky Sall def na ko ci loole nag moo tax lu toll si ñaari téeméer ak juróom ci ay organisation yoo xam ne maanaam ñoo ngi koy jaajëfal di ko tàcc ak di ko baraawo yéen kaay gi di sunu làmb ñu xëy fekk fa Eumeu Sène nee na jamono ji pare na ngir bëre ak Balla Gaye numéro 2 ne na kombaam ak Balla maanaam du yomb journal bi di sunu lamb ne na Eumeu Sène dafa def nag maa waxoon waxee ndax fii la waxoon ne du bëre ak Balla Gaye numéro 2 yéen kaay gi nee na Modou Lo jamono ji bay boo mbokkam daal di koy waajal ndax